jawtullaha bi kitaabihi ila duxooliya jannatahu jawartu bil furxaani rabbiyal muhin malaktu nafsiya wasa saatullahin jawartu bil أخذت من دنياه زاد للجنان وانخاد لي هوى ولي صفى الجنان ولا نيا الأبرار في أخرايا وانخاد لي بلانتها قرايا رافقني إلى الجنان جيم wali siwaay suusiya rajimun tursiani lahini wal fujari kawnul badil alamin najari akramani badiu bil kitabi wasanani an jalibin hitabi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Cheikh Ahmadul Bamba Xaadimu Rasul su ngeen déggee kàddu xasaayit googu ngeen dégg léegi ngeen xam ne lislaam xewleeti na waaye rawatina nag yoonu murit ci fan ci fii ci ndaam di kër sëriñ ndaam Mouhamadou Lo Mbéri lan moo fi am muy ak màggal goo xam ne ñu ngi jëlee ndigal li ci Cheikh Ahmadul Moxtaar mi nga xam ne mooy xalif daaru xudduus wàcc si nag ci ki nga xam ne mooy sëriñ abdourahman mbàkke mi nga xam ne tey jii mooy xalifa cheikh ahmadul mbàkke gaynde fatma waaye nag ñëw ci taawam ba cheikh moustapha al karim mi nga xam ne mooy doomi cheikh mouhamed mbàkke muy ndigal loo xam itam ñëw na ci suñu kilifa nga xam ne mooy xalifa sëriñ daaw mouhamadou loo mbéri di sëriñ bàcci loo wàcc si sëriñ omar mi nga xam ne jërinam la moom itam di xalifa sëriñ omar ndaak ak sëriñ baaraloo wàcc si nag ci mboolem ay rakkam ñu taxaw fii nag teew ci kër Serigne Ibrahima ngir waajal bis bu mag bis boo xam ne ñi ngi koy defal ay awliya ñoo xam ne ñu liggéeyal sunu borom subhaanahu wa taala la muy mboolem njabootuk soxna Ndaak Lo gi yëpp di Serigne Omar Ndaak Serigne Bay Ndaak ak mboolem ñi nga xam ne rek moom la soxna soosu jabooti te ñu dem waaye itam ak mboolem taalibe yëpp bis bi nag incha allahu rabbi ñi ngi ko war a def le 13 février bi ñu jëm ci atum 2019 tay ji nak ñu tew fi ni ak daaira bi nga xamne tay ñoy daaira soldaari khadim rasul ngir waajal bis bu mag bo bile. kon ginnaaw bu ñu leen nuyoo ci tour wandam gep gépp serigne sëriñ Lo ñii ko serigne amni Lo waxe rek ñi ngi wax ci kaddu serigne Omar Lo mi khalifa serigne Baara Lo ak mahmoud dan Lo di leen wo ci bis bu mag le 13 février ngir magal serigne Omar ndak ak ay setum ak mbolam lu aji ci ñom du ci woo mboolem ku di jullit rawatina yoonu murit rawatina ko suñu munu saw rawatina ko suñu wàkk suñ bàkki son loo rawatina waa ahlu wilaaya yi nga xam ne ñooy ñoom ñuy ñun bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bis boobu nag bis mu màgg la ñoo ngi sant nag suñ doom yii ak suñ soxna yii ndax ay doom lañ yoo xam ne yii kat waxuma la màggal la ñuy woote waaye ak bokk sax mën naa ne moom la ñuy woote lu ko dundal ndax kat sëñ sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa waxoon sëñ Mor ne ko Momar mu ko Mbàkke mu ne ko man yàqatul nafsan mutahammidan bi saa jahannama jooju lan lay firi mu ne ko koree ab bakkan te tey comme xam nga bakkan bu saa borom di waxa alxuraan de dafa riis mu ne ko déedéet boo na ko baaxee di ñu jël mu ne mooy koree ak bokk te tey ko ci la bokk kon gone yi nii ñu def ak soxna yii lëkkale bisi ak mboolem lu aju ci sëñ Omar muy sët muy doom yaatal ko boole ci ñëpp ñun ñii seen wayjur day ëllëg wóor nañu na ñun bu ñu fi bàyyi kon suñu xel dana dal ndax waxuma la màggal gi nuy màgg di ñaan waaye njaboot gi ci takkatoo doon benn rek loolu jar na wooteeg màggal kon màggal la boole bokk la ñu ngi ciy woo ñëpp ndax sukku mën a day bis boobu ko ci teew suñu borom aajo joo indaale attan na ko ndax yàlla rek a tax kon daal ñu ngi leen sant di leen gërëm. di leen nuyu ci turu daaira soldaari xaadim rasul ànd liggéeyal sëñ Baararo muy daaira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem kër gi. bépp événement bi fi am daayira bi ñoo koy taxawee pour ñoo ngi leen nuyu turu daayira boobu muy Soldar Xaadim Rasuul ci jëwriñ Serigne Cheikh Bara Lo ak sunu jëwriñ Serigne Balla Dioum ak mboolem soldaar yi nga xam ne ñoo topp ci suñu ginnaaw ñu ngi leen di woon nag ci bis bi nga xam ne amul lu dul moom muy suñu bisu sëriñ bis bi nga xam ne moo ñu gënal ci suñuy bis muy bis bi comme ni ko kilifay waxee muy le 13 février alarba bi ñu alarba le 13 février 2019 ñu ngi woo mboolem ñi nga xamante ne bii ñooy suñu mbokki taalibe yi di woo mboolem murid di woo daa daayira yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yi nga xam ne ñoo nekkandoo fii ci section Taïf di leen woo ca bis buñ ca àggee ak jàmm ñoo ngi sàkku seen tawaay ñoom ñëpp di woo mboolem jullit ak mboolem taalibe bisimilahi rahmaani rahim yéen mbokki jullit mbokki taalibe yi ngeen déggee sunu kàddu day dañoo am bis bu mag bu màgg ci ñun boo xamante nii dañ ko delloo siwaat muy bisub sunu maam ya maam Omar Ndaak ak Mbay Ndaak ak mboolem njaboot gu ci sëtu rek ñuy wax nag ci turu sëti sëriñ Omar Ndaak ak Mbaye Ndaak ak sëriñ Baara Aminata ak Mourou Aminata ñuy woo jullit yëpp nag képp wax ashadu an laa ilaaha illallaah rek boo déggee sunu cadre rek mooy sa woote. woon nañ mboolem njabootu sëriñ Touba gi rawatina waa kër sëriñ Muudu Moustapha ñoo ngi woo Taïf gépp ak li war Taïf rek commune Taïf beeg lépp ñoo ngi cee woote ñoo ngi woo daayira yi di ci jiital daayira wilaaya daayira ahbaabu jamiihati muridina daayira bu nekk ci Taïf Mbàkke rek bàyyiwun kenn képp ku dégg suñu kàddu rek woo nañ la kuy wax asadu ñoo ngi woote turu sëriñ nag ginnaaw bu loolu yee ñuy soññ ay kàddu ci daayira bi rek nga xam ne daal ñu soññ mbooloo mépp mboolem kurib daayira ci Taif rek ñu ngi lay soññ ñu ngi soññ wilaaya yi ñu ngi soññ Ahibaahil Khadim ñu ngi soññi waa gépp xam ne ñëpp ci màggal gi lañ ñuy woo ñëpp ñu ca teewaayum ñëpp ginnaaw bu loolu ñuy soññee ci baas bi képp koo xam ne am membre nga ci dëkk bi ak feneen na nga teel a teew ca baas ba ñu soññee ko waajal ko xam ne bis bi suñ bisa ah te bis bi wax deug yalla ñaari jambar lañ koy defal ñaari jambar yoyu nak ah lu leen way defal lola payik sun borom nga tay am ndax ay góor yalla lañ won kon bis bi ñew na tay nu wara sant ko fekke te tal ko ba man ci def sunu doole ak sunu ñak kon noo ngi sant yàlla bu baax di sant sunu jëwriñ yi nga xam ñoo jitu ci magal gi di ñaanal Cheikh Omar mu yag fi loolu. comme ni nga rek non lañu ko ubbe won ci jotaay bi. Eh, di wax ne rek tàgge boo gis bu nekk dana am jàppal diw ba tax na du ñu mën a ñàkk a tudd ay nit ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi nga xam tey moom la ñu taxawee donte ne tudd nañ maam yi ñu koy defal yëpp itam waaye ñu ngi koy eh, ànd ak ñi nga xam ne ñooy njabootuk eh, sëñ Mbacke loo fa jaxate bu bu Jurbel ak mboolem waa Jurbel yëpp ñi nga xam ne ñooy sët sëñ Mor Absa yeeg ñëpp nga xam ne ñoom ci kër gi la ñu bokk waaye itam waa kër sëriñ Idrissa loo ku ci mel ne soxna Mati Lo ak ñoom sëñ Ibrahima Lo euh, euh, ñoom sëñ Moustapha Lo bu sëñ Ibrahima ñoom ñi nga xam ne tey euh, ñu ngi bokke ci maam maam Mbay Ndaak waaye itam ci wàllu taalibe itam bu ñu limee ku mel ne alhaaji Malick Samb mel na ne tudd nañ mboolem taalibe yëpp nga xam ne moom magum taalibe la ci kër gi moom itam mi ngi bokk ci li nga xam ne mooy liggéey bi ak màggal gi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene defal maam yi su ko defee rek eh, ñu xam le ne Euh, bis bi ñu ngi ko darajaale Serigne Bassirou Lo Ali Aram moom itam lépp di nga xam ne noonu la ko suñu way suñu way juri waxee di Serigne Ibrahima loo euh, li ñu gën a yitteel rek mooy maanaam suuxan mbokk gi ak dëgëral ko ndax dafa nekk loo xam ne kat sunu borom subhaanahu wa taala moo ko santaane ni nga xam ne noonu la ko waxee ba tax na ñuy fexe rek di ko gën a yaatal fu mu mën a dem ba tax na ren jii ñu jël ko daal di koy darajaalewaat génnewuñ ko fenn fudul ci biir mbokk gi muy waa kër sëñ Basiiru lu Aram muy bis boo xam ne itam daañu ca waxtaane ak mbokk bu wér a wér a wér a wér ndax thème bi sax ci loolu lañ ko jëmalee incha allahu rabbi kon thème bi mi ngi doon ak mbokk ni nga xam ne tey noonu la mën a indee jàmm waaye tam noonu la mën a indee développement lépp tam ñu sukkandikoo ko rek ci li nga xam ne mooy njàngale njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne moo mi ngi gën a siiw ci la constitution de Médine euh, loolee moom la ñu tuddee thème bi ñu war koo jox ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima euh, sëñu euh, sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngeraan boobu mooy war a taxawaay li nga xam ne tey maanaam mooy programme boobu le su ko defee ñu liir nag li nga xam ne mooy programme mu bis bi bis bi incha allahu rabbi comme ni ñu ni ñu ko aadawoo ci mboolem bis yi nga xam ne bisi diine la yëpp rek ci wàllum njàng alxuraan ak wàllum njàng xasaayit incha allahu rabbi ñu ko def euh, ci suba gi bu 8h jotee ànd ko ak mboolem daaray kaamil yi nekk Taif yëpp ak ndongo yi yëpp waaye lu jiitu lool tamit ñi xam ne ne commencé nañoo sas suñu biir ay ay xasaayit ak ay kaamil ni ko sëñ Cheikh Diop di defee ca école Touba ba ba ñëpp dégg nga euh, maanaam di ca am am am euh, maanaam taxawaay taxawaay bu am solo bu ñu defee lool ci wàllu njàng mi ba. 14 heures dañ koy xëyee yendoo ko ba 14 heures su ko defee ñu daal di julli nag li nga xam ne mooy tisbaar daal di waajal li nga xam ne mooy euh, maanaam euh, xéewal yi euh, loolee nag ma ngay doon 14 heures ba ba 15 heures ci lañuy def xéewal yi ginnaaw 15 heures nag ba 17 heures dañuy def li nga xam ne mooy animation muy yëkkati ci wàllum kuréel ak xasaayit yoo xam ne daañu ko amal ca maanaam ca baas ba bu 17 heures jotee nag ba jàpp 18 heures 15 loolu dañu amal ay ziar. jëmale ko ci mboolem xalifa yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci euh, dëkk bu sell bii di ndaam euh, bu ko defee euh, bu 18 heures 45 jotee ba 19 heures nag ñu daal di amal li nga xam ne mooy julli kimis gi su ko defee ñu daal di dem nag ci deuxième partie bi muy partie bi nga xam ne tey mooy guddi gi loolu premier heure bi mi ngi doon 17 maanaam 19 heures 20 minutes ba 19 heures 10 loolu kon moo soxal wàllu cérémonie bi su ko defee daañu ci ubbi alxuraan ci diggante minutes yooyu noonu li tollu dix neuf heures vingt ba dix neuf heures dix ñu amal njàngum alxuraan ngir tijji li nga xam ne mooy cérémonie bi dix neuf heures euh, dix boobu ba dix neuf heures quinze ñu amal mot de bienvenue ak euh, maanaam mise en place des invités mooy lan maanaam ñu dalal gan ñi euh, tatagal leen ci li nga xam ne mooy euh, conférence boobile su ko defee nag ñu daal di jox ki nga xam ne mooy borom xam-xam bu mag bi euh, di conférencier bu mag bi nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko muy Serigne Ahmadou Ndiaye Nguirane mu abordeel ñu thème bi nga xam ne tudd naa ko léegi. bu 20h jotee ba tegal cinq minutes ba 21 daa ñu fa xaarandi message bu am solo boo xam ne dana jug ci dana juge ci Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Mbacke Mohamed nga xam ne suñu wëlëreel di wëlëreew kër gi di suñu Serigne jamono ju nekk rek. rek muy euh, ñëw di barkeelu si ci li nga xam ne mooy waxtaan di ci def lu am am solo euh, ci yee nit ñi ak euh, di leen laabiire ci li nga xam ne mooy diine ji su ko defee moom bu 21 heures jotee ba vingt 21 heures cinq ñu jox nag ki nga xam ne tey mooy président Euh, maanaam daayira soldaari xaadim rasul mu jàllale benn message bu am solo su ko defee nag ñu daal di jox mbooleem ñi nga xam ne ñooy autorité rek invité yi fa teew yëpp te war faa mën a jël kaddu ñu jox leen ca jataay googi la ñu daal di jël kaddu waaye itam daañu jox ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Lo mu Serigne Bàcc nga xam ne moom itam borom xam bu mag la mu def benn thème bu am solo jëme ko ci jàmm moom itam ndax ñun lu dul jàmm rek maanaam euh, yitteelunu su ko defee nag ci euh, bu maanaam bu 21 heures jotee ba jàpp 3 heures léegi foofu nag animation kuréel moom itam kuréel xasida yi nekk taaf yëpp la ñu fa woo ngir ñu fay jàng ak rajaskat yi ñu maanaam yore guddi gi ba heure boobile bu 3 heures jotee nag ci la jàngkat bu mag bi nga xam ne moom itam Sénégal yëpp ràññee nañ ko muy Serigne Khadim Gueye moom moo fas yéenee fanaane guddi gi mbokk yi daal nii la ñu fas yéenee amale li nga xam ne moo di jataay bi muy euh, màggal goo xam ne màggalug dox mbokk la màggalug jàmm la màggalug ñaan la ak fàttaliku mag ñi xamante ne seeni tey ñoom ñoo ñu jaboote teb euh, dégg nga woman ñu ci yoon yi ba nu agsi fii ni tey ñu fas yéen di leen fàttaliku di leen dolloo njukkal woote bi nag ni ko ñëpp waxee rek ñoo ngi ci woo ñëpp bàyyi wuñu kenn umma islam bi yëpp ñu ngi leen di woo te xam ne màggal gi dafa rëy ci ñun àgg ci ñun foo xam ne képp koo xam ne rek wëllëre nga ci kër gi rek bis boobu ñoo ngi la ci woo bàyyi wuñu kenn yox wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu